Senegalese army says about 100 of its soldiers on, on peacekeeping mission in the Gambia has tested positive of coronavirus. The military comprising 600 soldiers are returning home. They have been quarantined in tu, sorry, <laughs> Tubakuta, Tubakuta on Senegalese territory near the border with the Gambia. Wow. Uh, mu nekk tamit mi laal na leen ah. Wow. Euh, téeméer ci ñoom dafa mel ni ñoom tamit am nañ ci euh, ñoom euh, juróom benn téeméer six hundred ñoo doon dellu si hundred ci ñoom am feebar bi ñu quarantine leen ci Toubacouta comme ni nga ko waxee ci booda bi daanaka diggante Gambie Sénégal waaw léegi nag loolu dafay waree na feebar bi moom bàyyib kenn mm, waaw exactly comme noo ko waxee <laughs> bu demee nag bi muy laal ay président ay vice président ak yu mel noonu Euh, der yi tamit si lañu si la si la ñoo bokk léegoo léegi mooy loolu ñu ñaan yàlla rek ñu ñu teel koo contrôle mu gën a law si biir ndax ñoom tamit seen dëkkin ak seen nekkin euh, dañ leen soxla bu baax waaye tamit bu fa duggee mun naa law mu dugg ci place yu bari te loolu dafay gën a doy waar euh, ñoom ñu ñu ngi leen di ñaanal comme seen mission dafa mel ni jeex na fi ñu ngi dellu seen famille ñu wér mun a dellu si ñeneen ñu ñëw tamit ñu dalal leen waaye xam naa ne seen nekkin fii tamit nag bari na coow ak yooyu sew yi wax yu sew surtout bi ñu yokkee mandate euh, ECOWAS bi fii ba 2021 bu yàggul gis-gis yi wuute nañ ci dégg nga euh, Citizen Alliance ñu cee wax ak ñeneen tamit ñu cee àddu taay yëpp coow li bari na moon ña mhm. waaye mu ngi noonu euh, ma bàyyi la rek yow tamit nga def si sa sa jàngat ci ci comme ni ñu ko déggee ci ci ci xibaar yi. waaw donte seen teewaay si réew mi lu am njëriñ la waaye très ñuy génn di dem ñi la ñoom dina leen leen korente waaye ñuy dugg si itam. Mhm. donte la bi am na solo balaa ñoo. war nañ ñëw time bu nga xam ne ni dinañ leen def quarantine xam ñu ko am ak ñu ko amul bala exchange di di am bala ñëlé di dem té am na taxway bu la ci wa kër docteur am bañ gis li mhm. nekk na lu am solo bu ko ñoom tam dañ nekk di trouble té bu ñëwé dañoo dem lanté nit ñi Euh, te CEDEAO si nañu ne que dañoo jaxasook ak yeneen soldats rek ñoo ñu wàcc ñibbi ñoom tam ñu wàcc ñibbi moo tax taxawaay bi pour gis ne ñoom tam gis nañ ne euh, am nañ quarantaine ba ñuy mucc si feebar ba am ko ñu tam ñu tegeelee saa loolu am na si solo waaw. Hmm. taxawaay bu si waa kër docteur def ba gis ne am na ñu ko am ak ñu ko amul nekk na taxawaay bu am solo. waaw sa sawar maan bi na dal nag.